su ko defee ñu ngi leen nuyu rek fu waay mën a tollu di seetaan li nga xam ne moo nekk seen BNT VIP magazine di leen wax rek ne comme niñ leen koy diggee rek always di dem di seeti ñi nga xam ne ñooy imam yeeg ustaas yi. te nag ñu ngi bëgg a waxtaan a yéen lu demee ni ki gàmmu ndax soo leen bàyyi xel lii nii di weeru gàmmoo mu ngi ñëw taxaw ki nga xam ne mooy kii gën ci mbindeef yi mooy yonente yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam muy weer bi xam ne moom la gane woon àdduna incha allah tey suñu programme ci loolu leen ko fas yéene tënk fas yéene si ànd ak ki nga xam ne miin ngeen ko muy seen Cheikh Tidiane Guèye nga xam ñëpp xamee nañ ko ci gàmmo nga ay gàmmo lay def su ko defee tey moom leen fas yéene dalal ci programme bi nii da alhuda mu waxtaan ak yéen ñun ci ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee rek ñu ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullah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 إمامنا الأبهر الشيخنا أحمد بن محمد التجاني أسقنا الله من بحره بعظم الأوان السلام عليكم ورحمة الله wa barakaatuhu ñu ngi nuyooti mboolem ñuy seetaan TV bi nga xam ne tabaarakallaahu seen programme Huda TV ma ànd sama xarit xaaj Mouhamed Kebe ànd ceeg suñ caméraman bii nga xam ne tabaarakallaahu nu ngi koy ñaanal bu baax yàlla gën a dëgëral yàlla gën a taxawu bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Hadj Mouhamed maa ngi lay fay nuyu di fayit nuyu mboolem kuy seetaan seen Sick eh, TV bii nga xam ne tabaarakallaahu ñëpp nañ ànd di ko seetaan ngir lan seen lépp diine la ñu ngi taxawu diine bu baax a baax a baax bu ko fee kon ñu ngi leen di ziyaara di leen dalal. ci waxtaan wi ñu nar a séq man ak yow. kon mbokk yi ñun ñëpp ñoo dégg li nga xam ne mooy nuyoo bi nga xam ne imaam nuyoo na ko di sëñ Cheikh Tidiane Guèye tey nag ñi nga bëgg a waxtaan yow ci li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa naa nga koy tënk rek xam naa du mat gàmmu waaye nag da nga koy tënkale rek suñ na wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi yaa ngi laajte koo xam ne tabaarakallaahu ku dul boromam bi ko bind. kooku rek moo ko xam subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy muhammad ibnu abdullahi muhammadu rasulillahi muhammadu nuuru abdullahi kon nga yëgee ci ne ki ngay laaj ci jëmm jooju dafa am ku ñuy wax nuuru abdullahi am ku ñuy wax muhammad ibnu abdullahi am ku ñuy wax muhammadu rasulillahi muhammadu nuuru abdullahi kooku yàlla moo ko xam subhaanahu wa taala da ngay dégg nag suma mbokk yi nga xam ne understand wala dégguñ yu bëre bëri bëri da ngay dégg ñu ci indi ay diingat wala ay naan comme yonent bi sallallahu alayhi màggal yonent bi wala nangam waaye ma ma njëkkeeg yow ci Mouhamadu Nourou Abdallahi Mouhamad ñett la Mouhamadu Nourou Abdallahi Mouhamadu Ibnu Abdillahi ak Mouhamadu Rasulillahi ñii nag yii maqaama ku la raw ci yii la la rawee Mouhamadu Nourou Abdallahi mooy xaqiqatul Mouhamadiya muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay gëm yow jullit bi gëm gëm bu wér ne yàlla lépp lu mu bind mu ngi ko bind ngir màggal yonent bi maanaam yàlla loolu gëm-gëm la boo xam ne du loo xam ne nit da ci am ay xel ñaar déedéet yàlla lu mu bind mu ngi ko bindee ci leeru muhammad loolu nag ku amul dégg-dégg da ngay defe ne mooy leeru yàlla gi dafa wàññeeku wala leeru yàlla gi dafa maanaam dafa am loo xam ne daf ca manqué déedéet yàlla suñ borom lii ma lay wax nii hadis la te hadis bi boo demee ci jaabir ibn abdullahi solo na hadis boobu hadis boo xam ne jaabir dafa ñëw ci yonent yàlla muhammad ne ko yaa muhammad yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom jaabir daf ne ko axbir nii an awali cheyin xalaqahu llahu taala qabla al ashyaa yow muhammad maa ngi lay ñaan nga xibaar ma lan la yàlla njëkk a bind يا رسول الله ام نصب بن رواه بن فداك امي وابي ما نلاي جوتي سما باي اك سما يا يا محمد لان لا يالا نيك بند بلا مو بند دارا مولوكو يا جابر ان الله قد خلق نور نبيك فجعل ذلك النور يدور بقدرته حيث شاء لم يكن سالك الوقت بوبا لا لوح ولا قلم ولا سماء ولا أرض ولا جن ولا ملك ولا عرس ولا كرسي ولا دواب ولا إنس ولا نار ولا جنة كن دار أمول بوبا دار أمول حديث بي نيلة تدينغا خامنة يونتي صلى الله عليه وسلم موكو وخ ييغا خامنة فلا ما أراد الله أن يخلق خلقا خلق نور نبي الله min nuurillaahi kon première yoon da ngay gëm ne yàlla ci leeram gi beneen bi keneen ku gëm ne yàlla bind na leneen ci feneen lu dul leeru bi yow yaa gën a bokkaale yàlla kan ndax dara nekkul fi yàlla rek a fi ne kaana allaahu la shay'a maahu yàllaa fi ne te dara new fi yàlla moomu ne fi na te dara newu fi bi mu bëggee mbind mbindeef lu def dafa jël ci leeram gi moom yàlla ndax booba jalaal la moom rek a am jalaal yàlla jël ci jalaal bind ci jamaal ci jamaal mu bind ci kamaal jalaal jamaal kamaal jalaale yàlla jamaal mooy muhammad jam kamaal mooy jibril yii yëpp nag ay détails yonent bi ne yàlla jël leer ga seddale ko ñetti xaaj kon lawlaahu lam yakun kullu kawnin wala kaana maxluqun fil barri wal baxri da koy gëm comme ni ko maam Khalifa Niass ndeysaan waxee sunu góor gu baax googu nga xam ne mu ne anta lawlaaka lam yakun kullu kawnin ولا كان مخلوق في البر والبحر بنين دي وخاتي واخ بو غنا دوار بوبو كون غا ييغني سيدنا محمد موم لا يالا بيند حديث بي حديث جابر لا بو ديمي سي كينن مون لا يالا بيم بغا بغ مينديف فقبد قبدتا من نوره المصون الذي قدر ببدي حكمته ان يخترح منه وما كان وقام في علمه ففرف تلك القبضه فقال ايها النور فقال أيها النور كن عبدي محمدا مخصصا ممجدا فالله بالسمع وتاع كن لي مولاي واني كن محمد نور عبد الله كن موي حقيقة المحمدية كن لير ينتي الله محمد لا يالي نجك بيند كوكو لنيو تودي محمد نور عبد الله gis nga boko le sunu serigne ba mam cheikh serigne hadji malik radiyallahu ta'ala anhu mom nga xamne tay gam waxuñ ne ci mom la tambale waye bokku ne ci ñiko siwel ba ñepp mëna bëgg gam moom waxoon na ala azimu laylal wiladati xisbatan booba ca guddi ga la wax waaye nag moom bokk na ci njëkk ne innahu is aradallahu nasatana abana min nuuri nuuri nabil alami ñu bari nangam ñu bari jëm ko fa boo demee ca nuun yàmba sax nga xam ne loxu qablal wiladati mujisatun tara xam loxu qablal uyuni taraha doona dununi googa mu waxoon ca nuun yëba wax na fa benn xadis boo xam ne jibril sax moo ko solo diggante jibril ak yàlla jibril wax na leer gi may gis ci xanxamu maam Adama bi daal leer gi man xaw ma lan la mu ne ko leer googu law laaxu maa xalaxtu ko su taxatoon a leer googu du ma la bind kooku yooyu histoire yu bëri ñëw na ci tegu ci fuur kooku mooy Mouhamadou Nour Abdoulaye loo tax Maodo bi mu koy tagg ba ngay wax ay baay ak kaana siisun wasiyal asi muntaqilan min qiratil karami lil qiratil karami dafa ne Mouhamad Nourou Abdoulaye foofu Nour la fa Mouhamad tudd Mouhamad Ibn Abdoulaye nag mooy. ليلة حروبتي على الدر في رجب سم المنادي ينادي مسمى الفهم أن أعتروا باقروا خير البقور وأفرسوا سجادات تكريما على القسم سيدي حاج مالك واخ بني كرك بي ماي آمنة مايك عبد الله مايك سخنا كرك غودي googu nga مام عبد الله Abdallahi لير غكو يالا دنكون jébbal na ko Amina foofa nag ba ak ëmb ba la juróom-ñeenti weer la ñii na na juróom weer la ba ëmb ba amee ba na Muhammad juddu nga xam ne mooy bésu altine la juddu mooy weer wii nga xam ne tey mooy weer wi mu wi war a tàmbali nga xam ne mooy mawlidu nabi mooy nga xam ne tabaarakallaahu boobu la ñuy tuddee kooku nag mooy Muhammadu rasuli Muhammad ibnu Abdallahi Muhammad ibnu Abdallahi mooy Muhammad mi juddoo Màkka yaroo Makka nekk Makka yaayam gaañu ci juróom-benn at ñii ne ñeenti at baayam gaañu ci ñaari weer xadaa bi ab waa Abdullahi xiina mada shëraani lil hamli hada asharul kalimi kooku mooy Mouhamed ibnu Abdillahi Mouhamed ah, moom la Abu Jahlin gisoon na moo tax mu dugg safara Abu Jahlin gisutoon Nuuru Abdillahi gisutoon ras Mouhamed rasulillahi Mouhamed ibnu Abdillahi waaw Mouhamed mii daal Makka la juddoo Abdillahi baayam Amina yaayam màkk la juddoo bésu altine la juddu ñu ne fajar la mat ga tàmbali mu juddu ci bésu altine maanaam fajar mooy ci boori quatre heures jàmp cinq heures quatre heures la mat gi tàmbali ba cinq heures ba six heures si la Seydunaa Muhammad dooru juddu jaar ci jimbaxu yaayam nag tàllal loxoom yëpp banque yëpp tàllal benn bi يمي سبابة مقبادا أصابحه مثل المسبح يرنو علوا saahimami yonente bi muy juddu bokkul ak kenn ni muy juddu jimba ko yaayam la génne ñaari tànkam yaa ci peelu mu jël bëtam ya di ko xool ca kaw jël loxoom ba tàllal yëpp banque yëpp tàllal benn bi muy sàbbale naan allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila kooku nag bi mu juddu ba la xew màkka xam ne bi mu juddu leer na leer goo xam ne ñi toog fii ci kóolóoli dañuy mën a toog fii di xool ña nekk ca baara ca gannaaw géej gi ngir leeru juddug Seyduna Muhammad tara xusuuru xaysar maanaam géej gi dox suma diggante ak baara ni man waa kóolóoli bi maanaam man juddu bésu yonent bi buñ ko doon exemple tey bi Seyduna Muhammad juddoo bés ba ndax jant bi ci boppam yàlla daf ko dabbali leer dabbali weeru leer dabbali biddiw yi leer ba pare nag yeneen i ay leer yoo xam ne dañu woon siyaare ndax jaa aadama moo koy dëggal wa wasiisun laha idrisun noohun wa huudun wal xalila simi maanaam weer wiñ ñu ëmbee rasulaay weeru sana yonentu ñëw na siyaare ci Muhammad wa rabbul kaabati wa huwa imaamu dunia wa siraju ahliha kooku nag bés biñ mu juddoo guddi ga fajar gi guddi gi waa kóolu li dañuy toog fii di seen waa baara di xool ka nekk ca géeju baara ga kay waaj a dugg gaal kay waaj a dugg féeri loolu yàlla nga ko jagleel Seydina Muhammad keroog bi mu juddoo géej gi la na ne ci ay jën jën mu daan lekk morom woo it day daw dajeeg moromu jënam wa ñuy daw dawante kenn ku ne lëng sa morom fóon sa morom na ko tey du bésu lekkante tey du bésu nangam tey bésu waa ji nga xam ne mooy xettali jaam ñi mooy sangu-sang ñi muy Seydina Muhammad moo juddu tey bukki it dajeeg bëy dawante bi xam nga bëy bukki jàmm dafa daan am waaye bañ dajee bukki bëy di daw bukki daw ba jàpp bëy jàpp ko foon ko gauche fóon ko droite na ko tey du bisu xeex du bisu lenn tey talaaxat wuxuusul xaafi xëy ni masratan kama kama kama laaxat sawa euh, euh, ala sawakinul baxri mooy comme ñu dajee ci géej gi niñ niñ dajee xoon di bég di bég di kontaanante nee na tey maanaam mooy bés bi nga xam ne bésu mbégte la looloo tax maanaam bés boobu Mouhamad dudd lalu buur yi nga xam ne ay ceddo lañ xoon sax seen lal yi dafa damm mooy ala sururul muluki laxaa jufuulun maanaam jufuulun lal yëpp a dammate ko ngir lan ñu ne yi seen bopp xërëm yi keroog bi Mouhamad dudd guddi googu kërëm yëpp a sujjuut xërëm yëpp a normalu ci suuf fa muftaqirun bi muftaqirun yu naadi yu daaifu dufahu kulla aynin xërëm sa day ñëw jàkkaarloog borom xërëm bi koy jaamu na ko tey nag bés bi yow man mi ngay jaamu tey ki ñu war a jaamu ki ñu ko war a wan mooy yàlla muy Seydina Muhammad juddu la kon bés boobu la ca xew dafa bëri bés boo xam ne la bésu mbégte la bésu kontante la bés boo xam ne la mooy bés bi yonent bi juddu kooku nag mooy Muhammad ibn Abdullahi mu am la ca xew Cheikh Sidi Hadji Malick wax na ko ñëpp la xew ca ñetteelu at ba ba fukki at ba ca fanweeri at kere bi mu amee ñeent fukki at nag kere la ñuy tuddee Mouhamadou Rasoulilahi Mouhamadou Rasoulilahi moom nag yow mi a xam bëgg ko li toppal xudaa mii rek incha allahu rabbi da nga ci xam loo xam ne dana maa yes fii sudura liman xaralahu sama un fii xel mi xalih mi ku bëgg a xam kan mooy Seyduna Muhammad mooy ca Mouhamadou Rasoulilahi Mouhamadou Nour Abdoulaye tënk la Mouhamad Ibn Abdoulaye tënk la waaye toj ko ba mu tasaaroo. maanaam loolu mu ngi amee fii ci Huda TV incha allahu man Cheikh Tidiane gi ak seen mbokk Mouhamed Kebe nga xam ne tabarakallahu Mouhamed Rasulullah sa min baa di taa in wala min ba ca rek ñuy dugal Seydina Mouhamed ci bàmmeel al Huda TV mii bu ngeen ko toppee dana leen wax kan mooy Rasulullah. macha allah macha allah macha allah kon defe naa daal eh, li ñuy gars yi wax lancement la film bi ñëwagut. kon daal kon yéen ñi nga xam ne yéen a koy seetaan yëpp di alhuda seen ah, seen BNC VIP magazine dégg ngeen li nga xam ne moom la imaam ñëwee tey nga xam tey ñett rek la ñu mosal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku mel ni man mu ngi doon dégg Muhammad Muhammad waaye xamu ne ndekkeen Muhammad ñetti Muhammad am comme ni mu kon ñett yooyu la wax kon ñun ñëpp kon gis ngeen ne am na loo xam ne jàngeen nañ ko si ci commencement bi rek kon ni mu ko waxee suñ bëggee xam loo xam ne moom moo topp comme fan lañ ko yónnee ak naka la doxal islam comme ni mu ko waxee ne Sidi Alhaji Malick wax na ko ci ñaareelu at bi ci ñetteel at ba fukki at ba ñeent fukki at ba fi génne àdduna yëpp incha allah kon soo leen toppee seen programme bi ni di alhuda dana si def jéego bu am solo incha allah pour bëgg a waxtaan ak wax kan ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nit ki balaa nga koo xam nga bëgg ko da nga koy xam. ndax man duma mën a toog fii di wax ne bëgg naa fële imaam Moustapha Ndaw ne bëgg naa ko te xaw ma ko dégg rek laa si am du ko mën a bëgg waaye su ma ko xamee ma gis ko xam ko su ma ko gisul ma dégg ko ñu nettaleel ma ko rek dana tax ma gën koo bëgg kon suñ toppee alhuda da nga gis ne dana gën a bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yonte bi nee na képp koo xam ne bëgg nga ko yaag moom yéen a dëkk aljanna kon su ko defee xam naan ah, ah waxtu bi fi mu toll nii daanaka mi ngi ñëw jàmb si su ko defee dañ ko wax rek naka lay tàggu askan wi nga xam ne ñooy seetaan baarakallah di leen tàggoo rek képp ku yàlla bind nga yor bakkan di nooyi fexeel noo bëggee yonent bi ndax jamono ngi ñëw maam Cheikh Sidi Hadji Malick daf ko waxoon ku yebul bëril ñett wala góorgóorlu ci ñett ku yebul bëri looy wax astaghfirullah ndax bàkkaar day bëri soo defee bakkaar bàkkaar def la soo toogee sa kër sa bàkkaar ñëw fekk la fa soo nekkee sa biir néeg télé bi wan la bakkaar téléphone bi wan la bàkkaar kon bàkkaar day bëri mu ne doo leen bëri wax astaghfirullah ma aleykum bi dararan wa yumdidkum ila axiri aaya mu ne beneen bi it ku yebul di ñaan yàlla sutura ndax alal ju nu gàññi it amatul njëriñ jamono ji borom alal yi ñoo gën a bëri coow da ngay gis ku ci nguur ñu di la audit di la tëji kaso di la nangam kon alal ju amatul njëriñ waaye am loo sutur lawu ba soxla bu am mën ko faj mu ne loolu nañ koy ñaan loolu tax ñaanoon na ko ba ne ustur lana bi sitrikal jamili fi diin wa dunya sallallahu ala nabi ndax jamono ji sëriñ bi mat sëriñ kenn la mooy Seydina Muhammad sëriñ bi nga xam ne tey mooy ki nga xam ne li yuxrijukum mina zulumaati ila nuur zulumaatil kufri ila ila nuuril iman kooku maanaam kenn la mooy sang ba nag mooy Seydina Muhammad mu ne bëri leen lu ngeen di def salaatu ala nabi loo tax salli ala badri ma amal xajiju ila ziarati rawdi ya rahmaanu wallaahu loolu lay tàggoo waaye di tàggu waa Huda TV bii nga xam ne incha allahu rabbi tàggoo bu dul tàggoo la di leen jox dig daje ci niñ leen ko waxee ci jamono gàmm gii danañ am ak yéen ay jotaay yoo xam ne lépp ci Seyduna Muhammad la ak turandooram Mouhamed Kebe ak suñ caméraman bi ñaanal ko yàlla Alassane ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. الحسن مو موي الحسن موي لو رافيت تا يان يالا رافيتال ميرم باخال ليب تا فنام بجاه رسول الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته كون نيغا خامنا ني توب سين بروغرام بي ني دي الهدى في لا ني ييمال ييوال واختان غي با بنين يون ان شاء الله كون نيم كو واخا رك سو لا ني توبي incha allah dina ànd ak ci gàmm gi moom ak moom ñu waxtaanee ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek di wax lépp loo xam ne rafet na si rek ci borom bi subhaanahu wa taala ci la jógee lépp loo xam ne dëng na si ñaaw na ci ñun la ngeen ñi ngi ñaan jéggalu yàlla jéggal ñu yéen ñii seetaan ngeen jéggal ñu di wax rek ñi ngi sant ki nga xam ne mooy Alassane di Galamba Sassa mooy caméraman bi ñu ngi koy nuyu moom itam ci waxtu wi nga xam ne jël na ko ndax kilifa la ñi bàyyi ko fa la ñëw jël waxtu bi yëpp te am na yeneen yitte yu waroon a doxi ñi tere ko tënk ko ba nga xam ne nangol aajo kon mooy itam ñu ngi koy sant bu baax di sant ñi nga xam ne ñoom la nekk ci kër gi di sant waa daara ji ñëpp ñu ngi lay sant daal kon xam naa ñu ngi koy yemale fii benn yoon di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.